أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمه وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أول الواثقين في الله المتوكلين على المولى المعتمدين على صاحب السلطان والجاه اسمع إليه وهو يعلن وهو يلقن الأمة درسا في الثقة بالله فيقول يا ابن عباس احفظ الله يحفظك ihfazillaha tajidhu amamak ta'rif ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda ya ibn Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah ibadallah يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون mbokk yi ci yàlla ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali ci tomb bi nga xam ne su manqué ci jullit na xoolaat boppam ndax moom jullit la mooy am kóolute am confiance loolu ñuy tuddee siqa ci borom bi subhanahu wa taala tey li manqué xeet wi li manqué jullit yi mooy ñu am kóolute ci yàlla ku ne wóolu nañ la ba mu des yàlla kóolute moo manqué jullit yi te kóolute mooy nit loolu moo tax seetkat yi bari gisaanekat yi bari njabarkat yi bari ku jóg balaa ngay def dara foog nga dem gisaane ji foog nga seetlu lu tax parce que wóoluwunu yàlla sooy tukki foog nga dem xooli yoon wi lan moo ma ciy fekk lan lay am sooy takk soxna sax da ngay dem yóbbu turu soxna si ndeyam ak baayam ci njabarkat bi ci gisaanekat bi ci seetkat bi mu xoolal la lan moo nekk ci ndaw si parce que kenn amatul kóolute ci yàlla subhanahu wa taala xoola yonent yàlla muhammad moom mi nga xam ne ñi am confiance ci xeet wi moo leen ko jàngal moo doon jàngal xeet wi nan la seen kóolute war a toll ci yàlla yonent bi di jàngal doomu baay taxam abdullahi ibnu abbas yonent baa ngi yéeg ci mbaamam daa di togg xale bi ci ginnaaw waaye muy defar xolu xale bi digganteem ak boroomam pour xale bi mën a nekk jullit mu ne ko ibnu abbas ihfazillaha yahfazak wattul yàlla yàlla wattu la fépp foo nekk na nga sàmmonte ak sa borom ndax sa borom man laa sàmm mu ne ko sàmmal yàlla nga fekk yàlla sa wet xamal yàlla ci jamono bu mu yombee bis boo nekkee ci jafe-jafe boo woowee yàlla yàlla wuyu la sooy sàkku ndimbal tàllalal yàlla say loxo iza sta'anta fasta'in billah mu ne ko sunu borom subhanahu wa taala nee na jullit li mu war a rëdd ci jëwam mooy qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana dara duma dal lu dul lu yàlla wax moo may dal jullit soo gëmee loolu noppalu nga loolu moo tax mu bokk ci al iman al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi dafa bokk ci ngëm yàlla juróom benn keno yi benn bi ci ëpp importance mooy nga ngëm dogal nga gëm dogal su neexee ak su naqaree su neexee yàlla la su naqaree yàlla la mais nañ xool fan lañ toll ci tomb boobu tey dara tardeelul islaam tey jullit yi lu dul amuñu ngëm amuñu kóolute ci yàlla ku nekk wóolu nañ la benn boroom xam-xam day jàngale mu ne jullit ni mu war a amee kóolute ci yàlla mu joxe ci misaal mu ne ni nga amee kóolute ci sa avocat mbokk yi kenn ci ñun su amee problème ba nar a dem jëli avocat ndax da ngay dem jël avocat boo amul confiance wala avocat boo am confiance ngay jël ñaar ñi kan nga ciy jël ki nga wóolu su la nit ñi laajee nga ni jël naa avocat xoolal nga jël nit am ci moom kóolute wóolu woo yàlla bis boo gañee projet bi nag jeex na avocat boobu foofu lay jóge siiw ndax ku la waxati dara ci àdduna rek nga ni ko jëlal diw xoolal ni nga amee kóolute ci sa avocat est-ce que ñun am nañu kóolute ci yàlla tey ci noonu noonu ñu amee kóolute ci avocat yi ñaareel bi ni nga amee kóolute ci sa yaay walla sa pap gis ngeen xale bu ndaw bi ku mu xeexal ci mbedd mi kooku génn dóor ko walla mu am ak moom jafe-jafe ba papaam ne ko kan la papaam jiitu mu topp ci ginnaaw xale bi lan ban kóolute lay am ku papaam dajeel moo ko mën ku mu mën a doon nag lu waa ji ngand ngand boo laajee xale bi sa papa ak jiw ku mën mu ne la sama pap xoola xale nu mu amee kóolute ci way juróom est-ce que ñun am nañ kóolute noonu ci sunu borom ixwaani asiqa billahi am kóolute ci yàlla tajidha fi ibrahim alayhi salaam indama ulqiya fi nnaar da nga fekk kóolute ci yonent yàlla ibrahim keroog bañ ko tekkee ba mu dëgër ñu teg ko ci mbaq sànni ko ci safara si ibrahima ban kóolute la amoon ci boroomam bañ ko tekkee ba mu dëgër nag kañ teg ko ci lanspeer gaa yi di xëcc jibril ñëw taxaw ne ko ibrahima loo soxla tey mu ne soxlawuma kenn ku dul sama boroom allahu akbar soxlawuma kenn li doomu aadama yi bari li mbindeef yi bari soxlawuma ci kenn wóoluwuma kenn xoolal jibril mu ngi taxaw ci wetam kan mooy jibril zi quwatin inda zil arsh makin mutaa thamma amin doy na rek benn yàlla mu ne zi quwa borom kattan bu leen fàtte qawmu luut jibril moo leen alagoon moo roof ay laafam ci suuf yóbbu suuf si ba kaw asamaan kon kooku bu ko ibrahima ne woon damaa bëgg safara si fay nan la koy def waaye ibrahima da ko ne sama boroom faalewuma la yow sama boroom mbokk yi foog jullit mu am kóolute ci yàlla ba ibrahima amee kóolute ci boroomam mu ne hasbul hasbuna allah wa ni'mal wakil yàlla rek moo ma doy yàlla moo may dimbali lan la xew yàlla mu noon ne jibril ëffal sa laaf safara si mu fay wala mu ne ko ëf ko mu fay waaye yàlla dana jibril dama sa yoon bàyyi maag sama jaam bi parce que maa ko doy yàlla bàyyi safara si di tàkk ibrahima toog ci biir yàlla ne wa qulna ya naar kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim safara baa ngi tàkk mbokk yi sunu borom sax mënoon na ubbi robinet asamaan yi mu taw wala mu ne géej gi dawal fay safara si waaye yàlla dane damay won nit ñi ne du ñoom man la safara lu muy def du day lakkaate kii toog ci biir te lakkut parce que borom safara si moo joxe ndigal safara da ngay lakke mu ne waaw mu ne tey kii bokk ci ñi ngay lakk ku moom safara du yàlla yàlla moo jox safara si ndigal ne ko kii bokk ci ñi ngay lakk safara si di tàkk te waa ji lakkut kon ndeke safara du lakkee safara bu doon lakkaate malaaka yi ci nekk ci biir lakk ndax yàlla waxul wa ma ja'alna ashaaba nnaari illa malaa'ika ña fay liggéey ay malaaka la ñu tax du ñu lakk parce que borom safara moo ne safara ñi bokkuñ ci ku lakk yàlla moo jox safara ndigal na la lakk suñu bëggee xam confiance ci yàlla am kóolute ci yàlla tajiduha fi imraa fi imraa ismuha hajar suñu bëggee jàng kóolute ci yàlla yàlla doy ñu ci sunu lépp ñu bàyyi gisaanekat yi bàyyi xarfa fuufa yi bàyyi bàmmeel yi bàyyi dañuy fekk haajara jigéen bu jëkkëram jële ci ville yóbbu ko ba ci àll ci ginnaawu àll fu gën a àll àlle foo xam ne suuf sax amu fa amul tool amul garab amul ndox ku fa jiddu sax parce que ay montagne xeer la mu jël xale bu jigéen boobu tudd Haajara boroom këram jël ko ak doomam bu ndaw bu liir bu nekk ci ay sagar tooy xepp mënagul sax raam mu indi ko ba ci xur yàlla di ñu nettali place ba nu mu mel mu ne fii waadin gayra zi zarin inda baytika al muharram mu daal di koy teg foofu bu won ndaw si ginnaaw di dem ndaw si téye ci mbubb bi xëcc mu gestu xool ko mu ne ko lii nga def ku la ko sant mu ne ko sa boroom mu ne kon duma seetaan allahu akbar maadaama yàllaa ko santaane xoola ak barab boobu ni mel ndaw si ne ko fii xayr yiw rek moo ci nekk demal kon sama borom duma sàggane est fan lañ tollu toll tey ñu ngi kóolute sunu borom bu ñu xëyee foog ñu sotti ndox ci oto yi ana ayna allah ana yàlla foog ñu sotti ndox ci buntu kër yi kuy tukki foog nga dëgg ay paftan foog nga dem ñu sang la foog nga dem ci ginnaaw guy yi ayna allah ana yàlla ku xëy suba sotti woon ndox barab bi ngay liggéeyee jàpp nga ne yow tey doo yeewu jàpp nga ne fajar du la fi fekk ana confiance sunu kóoluteeg sunu borom xoolal ndaw soosu amoon kóolute ci yàlla ne woon borom këram yàlla duma seetaan kon Ibrahima lan la ko yàlla fayoon safara si bul ko laal Haajara lan la ko yàlla fay tey ndoxum zamzam koo ne ndoxum zamzam a ngi mu ne may ma naan ñépp ko bëgg ñépp ci barkeelu muy faj ay feebar te fu mu nekk mënta buuse yow rek yow yaay buuse mais moom du buuse ku ko weddi laajal Fahad buru màkk ba mu tabaxee immeuble am jël ay machine samp ko ci zam-zam ne day pomper pour ndox mi yéeg yàlla mu ne ko yaa koy fekk si ba léegi yéegu ixwaani asiqa fillah am kóolute ci yàlla najiduha danañ ko fekk inda ummi Moussa ci yaayu Moussa alayhi salaam yaayu Moussa ëmb na ci jamono joo xam ne Firawna mu ngi jël ay armam tas leen ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi mu ne xale bu góor bu juddu indil leen ma ko ñu rey ko loolu moo tax ñu war a jox suñu bopp yàlla ñu war a am kóolute ci yàlla parce que yàlla programme am kenn mënu ko téye doomu aadama tuuti na ci yaay Moussa ëmb na ñu ngi koy surveiller am na doom fekke wuñu ko lan la ko sunu borom subhanahu wa taala wax keroog ba mu amee doom moom yaayu Moussa yàlla mu ne wa awxaynaa ila ummi Moussa man yàlla maa wax yu yaayu Moussa maa wax ak moom lan laa ko wax man yàlla ma ni ko an ardiihi an ardiihi nampal ko nampal ko moom suur boo paree nampal ko nga laxas ko ci ay sagar nga ut benn kees dugal ko ci nga teg ko ci dex gi allahu akbar loolu boo amoon doom léegi léegi fii ñu wax la ko ñu ne la sangal ba mu set nga def ko ci ay yéreem nga def ko ci carton nga teg ko ci mbedd mi ki la wax loolu loo koy wax yàlla nag waxul yaayu Moussa sax nga teg ko ci mbedd mi da ko ne teg ko ci dex gi fa iza xifti alayhi fa alqihi fil yammi boo tiitee ci xale bi ra- sànni ko ci biir dex gi dex liir ku la wax loolu waaye kan moo doon wax ak moom allah loolu moo tax mu am confiance mu defar xale ba mu rafet teg ko ci kees jël kees gi teg ko ci dex gi yàlla mu ne tey ma yóbbu kees gi ci kiy rayaate mu xam ne kii bokku ci ku ñuy rey il faut ñu am confiance ci yàlla suñu ñàkk confiance ci yàlla moo tax ñu mel nii nu mel moo tax ñu nasax moo tax lislaam bi tardé moo tax diine ji nasax waaye sahabatul kiram même ñoom seen xissaa ngi ñëw bi ñu amee kóolute ci yàlla fan lañ yóbbu diine ji tey sunu borom subhanahu wa taala mu ñuy nettali yaayu Moussa ba mu tegee xale bi ci ndox mi yàlla ne vague yi yóbbu leen ma ko kër firawna lan la yàlla wax yaayu Moussa wala taxaafi wala tahzani inna radduhu ilayk ma ne soxna si soxna si na sunu borom ah mu ne ko bul tiit bul jàq kii dinaa la ko delloo jabaru firawna nekk ci géej gi sangu mook ay mbindaanam ak ay janqam ba mu seen kees gi di ñëw mu ne lii de kees la ñu ne ko waaw mu ne indi leen ko ñii soobu ci dex gi soobu dem feey indi kees gi ñu ne ko doom bu góor a ci nekk xam nga yàlla lan la ko lan la àmbalee kees gi wa alqaytu ilayka mahabbatan minni ku xool kees gi rek bëgg liir bi ku ko xool rek bëgg xale bi aaya boobu la njabarkat yi di jël di ci njabar jigéen ñi wa alqaytu ilayka mahabbatan minni jàpp nañ ne koo ko defar rek mu topp la allahu akbar xoola musiba firawna xool ko bëgg ko te moo ne woon ku judd nekk góor nañ ko rey lu tax kii duñ ko rey te mu ngi ni góor la allahu akbar jabar ji lan la wax qurratu ayunin lii lii sama bànneexu xol la kii moom nañ ko bàyyi def ko sunu doom amaana mu jëriñ ñu xam ngeen yàlla lan la fay yaayu Moussa keroog ba mu amee kóolute ci yàlla yàlla delloo ko Moussa ba Moussa nekkee ci kër gi di jooy ñu ne il faut ñu am ku ko nàmpal ñu wër ay nàmpalkat kuñ ko indil Moussa bañ kuñ ko indil mu bañ rakku Moussa bu jigéen magam bu jigéen ci pale bi lay liggéey mu ne xam naa koo xam ne buñ ko indee du xale bi du bañ ñu ne ko demal digg gaawal boole ko sax nag ak ay garde warloo ko fas mu daw ñu indi ndaw si mu ñëw ne bismillah jox ko ween bi xale bi noppi ñu loose ndaw si ci pale bi di ko fay salaire yàlla fay na wala fay ko yàlla delloo na ko ba pare yàlla fay na ko ba pare beneen garaat bi mun a gën a rëy yàlla mu ne wa jaa'iluhu min al mursalin gis nga boo amee kóolute ci yàlla yàlla dalay fay saa yoo amee kóolute ci yàlla soo defee dara ngir yàlla nga am kóolute am yaqiin ne yàlla wallahi balaa jant bi soo yàlla fay la mais maal asaf sunu imaan yi moo fay amatuñu kóolute ci yàlla moo tax njabarkat yi am ci sunu lu place seetkat yi ginaase gisaanekat yi lan ngeen dégg mooy léegi gisaanekat bi doon fayeeku junni ñaari junni lay fayeeku c'est parce que léegi rang bi dafa bëri ba pare te day limité quarante personnes xoola gisaanekat ak yow jullit ñu tere la gisaane ngay dem di xool lan ngay xool sa avenir allahu akbar mustaqbalaka gadan est-ce que suba am na ku am na ku xam luy xew lan la yàlla wax yonent yàlla muhammad muhammad alayhi salatu wasalaam lan la wax ci quran qul law kuntu alamu alxayba lastaksartu min alxayr wa ma massaniya su man sax su ma xamoon suba luy xew kon lu baax rek lay am lu bon du ma laal yàlla mu ne laa yaalamu alxayb man fi samawati wal ard illa allah kenn xamul kumpa kenn xamul suba dañuy fen rek parce que dañoo xam xeet wi lan sa mooy seen problème Sénégal boo xaajee mbooloo mi ñetti xaaj nga jël paa yi teg fee jël xale yu góor yi teg fee jël xale yu jigéen yi teg fee jël maire yi teg fee ku nekk am na problème boo ñëwee ci jigéen ñi wujj la ñuy bañ nga ñëw ci xale yu jigéen yi sëy lañ bëgg nga ñëw ci xale yu góor yi tukki lañ bëgg nga ñëw ci paa yi kër guñ tabax lañ bëgg jeex na boo ñëwee njabarkat bi ne la ah yow de yaa ngi ut kër fekk yow da ngaa luwe juróom-ñaar fukki at looy wax allahu akbar yow de yow dëgg yow yaa fi mën nga ñëw ci xale bu jigéen bi mu ne karaj karaj gis ne la yee yow de am na ñett ñu lay seet si xale bu jigéen boo fi gis juróom a ngi koy seet si waxuma la ak ñett yow de juróom a ngi lay seet si mu ne la allahu akbar waa ñoom ñett nag nga ni ko ah ñett lañ ku ci xeesul foog nga ñuul ku xeereer gi mu génn ne kii day gis wër na yàlla day gis lan lay gis ku ñëwoon ma wala loolu léegi suba léegi milliards yi wal ma mais ayna allah ana yàlla ana yàlla mbokk yi subhanahu wa taala soo deewee ëllëg dugg bàmmeel looy wax yàlla xale yu góor yi ku fi ñëw nga ni ko jàng naa ba pare samay këyit a ngi nii nga sànni affaire yi ne ko yow day ñeenti yoon a ngi ni ubbeeku bii ngi jëm Amérique allahu akbar nga gis mu jege si la waaw bii Italie la jëm mais bu Italie bi day xaw a dëgër tuuti bii foog ñu def ci sarax gis nga sarax bi ñaata la nga ne ko il faut nga def juróom-ñaari juróom-ñaar mu génn loo ko wax mu dem indi ji ko te dara du ci dëgg lii rek mooy problème mu xeet bi lii mooy problème mu société bi jigéen ñi mag ñi ku fi génn nga ñëw nga ne ko yow de sa jëkkër am na fu muy fréquente te boo gaawul dina leen takk boo gaawul léegi suba mu takk mu ne la fii ma toog laa koy def du ma dellu di ñëwaat jeex na lii mooy xeet wi su ko defee njabarkat yi li ci lii lañ ñuy rey di ñu indil problème kenn mënatul toog kenn xelam mënatul dal gisaane guddi gisaane bëccëg télévision yi rajo yi dem nañ sax ba ubbi ci rajo asiqa billah nañu am confiance kóolute ci yàlla loolu da nga koy jàng ci sahaaba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog ba ñu leen ne inna annaasa qad jama'u lakum faxsawhum lan lañ wax ñu am confiance ci yàlla ak ku xam yéeféer yi nu mu soxoree ak ku xam mbooloo yi nu ñu mel ahzab bani nadir bani qaynuqa qurays ak yahuud yi kenn xamul nu mu toll ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu ne saxaaba yi tey ngeen dee lan lañu wax qaalu xasbuna allahu wa ni'ma alwakil ñun yàlla doy nañu mbokk yi Moussa ci boppam jàngale na confiance bi ko firawna dàqee ak dooleem xooleen firawna jamono yooyu firawna nga xam ne dafa gouverner woon adduna ak doole ji firawna amoon topp benn yonent benn nitu yàlla ba ci géej fii géej moo fi nekk fii firawna moo fi nekk ñi amul iman mel ne nun naan inna la mudrakun tey ñu dee danañ ñu jàpp Moussa ak armée bi li muy bari firawna fasam yi soldaar yi arme bi jaas yi xeej yi fitt yi mu xool leen gis pënd beeg poussière bi dem nañ fi ak Dakar nu ñu toll nu ñu bëree ti tudde tey ñu dee mu naan leen laa inna ma'i rabbi inna ma'i rabbi allah dañ xool suñu bopp wallahi bu ñu amul pas-pas yi dañuy julli ba sonn woor ba sonn jàng alquran dara nii rek foog ñu am kóolute ci allah subhanahu wa taala ñu am confiance aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله mbokk yi pour ñu xam ne dañoo war a am kóolute am siqa am confiance ci sunu boroom dafa am benn couple benn góor ak benn jigéen bu doon sëy seen sëy lan moo ko lal yërmande bëggante ñoom ñaar kenn ku nekk day wax moroomam maa la gën a bëgg ba nit ñi di ko waxtaane waaw ñaar ñii moom kan moo gën a bëgg moroomam ñëpp di ko waxtaane dëkk bi ñëpp xam leen ni ñu bëggante benn bis ñu daal di ànd tukki di féexali seen xol ñu jël bato bato bi dem ba digg géej yàlla indi mbiram asamaan si lëndëm xiin bi commencé dënu yu commencé géej gi fees sambaraax ndox mi di sotteef kaw asamaan gaal gi commencé weng ñi nekk ci gaal gi ñëpp di yuuxu waaye yàlla dafa natt woon ñaari couple yooyu ku góor ki dafa dal ku jigéen ki dafa ëppal mënul muñ dara du wan na baat mais waa ji dafa noppi dafa yaru noonu ñu nekkee ci biir gaal gi ak gaal gi ni mu wengee ñépp di yuuxu ndaw si daw ñëw ci jëkkër ji xool ñépp a ngi ku nekk yaa ngi ut noo rëccee jëkkër ji moom mu ngi toog benn place rek ne teg jabar ji poñe ko yuuxu ko ne ko yow xanaa doo nit ku nekk a ngi bëgg a rëcc ñee ngi jàpp seeni doom ñii seeni jabar yow nga toog rek yaccaaral yambare waa ji daal di jóg taxaw génne benn paaka ci poosam daal di yuuxu ndaw si première fois am teg paaka bi ci dënn bi ndaw si ree mu ne ko looy ree mu ne damaa xam ne sa paaka bi doo ma ko jam lu tax parce que danga ma bëgg allahu akbar waa ji daal di toogaat mu ne ko lu tax ngay toog mu ne ko yow ba nga bëgg ma bëggee dangaa am ci man kóolute man damaa bëgg yàlla xam naa ne lii day upp rek yàlla day téye gaal gi damaa am kóolute ci yàlla yaa ngi ni bëgg ma ba bi ma jëlee paaka teg sa dënn dangaa am ci man kóolute xam nga ne paaka bi du la laal waaw man tamit ma am kóolute ci sama borom lii yëpp ngelaw la rek day jàll yàlla subhaanahu wa taala day téye gaal gi nga bëgg ma nekk fi di yëngatu du ma yëngatu loolu mooy kóolute ci yàlla mbokk yi suñu tolluwul fii dañuy nax suñu bopp ibadallah ya abdallah laa taxaf bu ragal fallahu yuhibbuk yàlla daf la bëgg kenn ci ñun warul am laam-laame ne moom yàlla daf ko bëgg su la yàlla bëggul woon doo nekk nit dafa lay def nga nekk rabu àll nga nekk mbaam xuux mbaa nga nekk jën ca biir géej ga wala nga nekk fas mbaa mbaam sëf waaye yàlla daf la bind nga nekk nit kon daf la bëgg lan la wax walaqad karramna bani aadam benn leen mooy wane ne yàlla daf la bëgg mu boole la ci ummatu muhammad kuntum xayra umma kon looy tiit boo amee borom bu mel nii ak yow wa huwa allazi ladayhi alqudra mooy borom kattan moom yàlla subhanahu wa taala kattanam doy na rek ci lim ñu wax ne yowmal qiyaam asamaan ak suuf dama koy lem téye ko ci sama benn loxo loolu la góor gi naan allah soo hulaaka o jola allah soo hulaaka o jola yàlla buñ ko ragalul rek daf ko neex buñ ko ragalul daf ko neex keroog ba mu bëggee ba ñu Israël ragal ko ci 24 heures bi fi ñu toog la yàlla déjjati benn montagne tiimale leen ko ne leen xuzu ma ataynaakum bi quwwa ñu daal di koy jël ci ci ay seconde yàlla ñuy wax ak wax ak ñoom ñu dëgër bopp yàlla déjjati benn montagne montagne bi tiim leen ñu koy sujootal ñu teg seeni lex nii lañ teg lex yi teguñu jëy yi moo tax bu ñuy sujoot ñoom nii la ñuy teg duñ teg jë ñuy xool ndax du ñu sujoot mu ñëw seen kaw yàlla ne leen xuzu ma ataynaakum bi quwwa ñu jël kon yàlla buñ ko ragalul da koo neex allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala jtinabi allahuma ya musabitu alqulub sabit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an turuddana ala dinika maradan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xizi dunya wa azabi alaxira allahuma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt birahmatika ya arhama arrahimin اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
Allah